pont bi na gars yi man man jàpp naa ne gars yi li ñuy def fu mu toll nii la c'est dangereux ndax pont bu dem ba màgget yow léegi gendarme yi nekk ci suuf dañuy arrêté oto yi fële di leen contrôler léegi oto yëpp dañuy obligé taxaw ci kaw pont bi di wàcce benn par benn oto yëpp obligé taxaw ci kaw pont bi te ñu ngi bi déjà ñu ngi déclaré ne pont bi daa màgget ñoom bu fekkee ne dañuy contrôler kay nañu wàcc fële nañu yéeg fële oto bu ñu contrôler mu yéeg pont bi dem yoonam mais a taxaw fële bloqué oto yi ñëw taxaw ci kaw pont bi ñuy contrôler benn par benn te ñu ngi déclaré ne pont vidéo bi na tas de na nga tas partout mu dem. Moussa ziar naa la ziar naa la bu baax a baax naka suba si gis nga pont bi euh, mooy pont bi nga xam ne ci ngay jaare dugg Ziguinchor mais gis nga ne président Ousmane Sonko ak Basirou Diomaye fay bi ñu fi ñëwee ci jamono jàng yi fi amoon gàmmu bi fi amoon Bignona bi. gis nga ne gouverneur ci kaw pont bi la taxawaloon président euh, Bassirou Diomaye Faye di ko won pont bi naan ko pont bi travaux yi nii travaux yi nii